bon man nag maa ngi tudd Pape bu Guèye mais ñëpp ñi ma xamee Thiès comme buzz quoi voilà. buzz buzz fi. waaw tey fii nag dafa am buzz sax comme comme mon nom hmm. bon dama ñëwoon am benn projet pour Thiès man Thiès laa dëkk gëm Thiès yàgg xam ni fii woon suñu dëkk la ñu ñoo ko war a mën a liggéeyal suñu bopp. ba ma projet bi bon ma ciblé benn site pour def fi benn restaurant. restaurant bi amul jaay sàngara amul jaay dara lekkukaay la. soo xiifee nga ñëw lekk dem te loo xam ne place bi lool loolu rek fi place bi loolu kese la laaj ba ma ko defee nag comme man je m'inscris dans la légalité ma dem seeti def def circuit bu ma war def dem au niveau de la euh, de la gendarmerie wax leen dama buggoon jël fii pour def ko pour def ci restaurant léegi ñu defal ma ñoom seen avis favorable bu ma yor bu ma yor nii bu ma yor nii mi ngi nii ma yor ñoom. ñu envoyé beneen courier au niveau de la mairie commune ouest wax leen que man dama fi bugg a def benn restaurant ñoom ñu yónnee waa waa mairie yónnee seen service technique pour ñu étudier terrain bi pour xool ndax lii mën na fi nekk wala mënul nekk ñoom ba ñu ñëwee ba xool ko waa service technique bind def seen rapport wax ni mais service dégg lu maire wax mais sama service ñëw nañu foofu gëstu nañu ko mais wane nañu que foofu. lii la boo xam ne amul lampe amul lumière fii lampe su tàkkee ba maa ko fi taal mosuñu fee taal lampe lampe bu fi tàkk maa ko taal que fii dañ fiy tox yàmba que fii dañ fi indi ay jigéen di di leen fi def la ko sudul noonu da nga na mu la wax moo tax ñoom ñu doxal seen aw favorable xam ni projet bi dina baax fii par rapport ak lu fi doon nekk ci loolu nag dañ ma joxee seen autorisation ma am autorisation bu maire am autorisation bu colonel de la gendarmerie ci kaw nag boobu ba léegi maa ngi liggéey liggéey bu ma liggéey maa ngi ko commencé le 14 février 2017 14 février 2017 muy metti may muñ aw ma xaalis bu bari mais maa koy ñafe mu metti ma dem banque leb xaalis xaalis bu bëri laa leb pour def lii loolu su ma ko defoon feneen moo na ma indil leneen loo xam ne du ma si sol commencé naa remboursé samay prêt juróomi weer nga nii maa ngi remboursé te commencé gu maa liggéeyee fii mais gëm naa ni day nekk moo tax ma def loolu te dama gëm sama dëkk te man dëkk bi dama lu ma fi joxe dafa bari man sam bopp ak ñeneen ñu may doon àndal tamit loo xam ni bu nu ma ko wax fii danoo joxe trop pour dëkk bi moo tax waa dëkk bi nag ñoo si war a jàpp ñun honnête de ay citoyens yu honnête la ñu jaay ñu drogue demuñu prison ñu fenn liggéey moo ñu tax a te lii may def ni lu mu dee dee fukk ak juróomi nit nan nan si mun nan si liggéey fukk ak juróom nit suñ ci liggéeye suñu suñu amee yeneen ñaar fukk nit ñu mel ni man di créer emploi et dix emploi quinze emploi dix huit emploi vingt emploi pour man suñu dëkk dina mën a avancer lu may ñaan nag mooy nan ma bàyyi ma liggéey parce que liggéey moo ma tax a moo ma joxaat sommation au moment où une semaine de l'ouverture du site ñu jox ma sommation pour man ma arrêter travaux ak démolition xanaa man sax su ma amoon kii man pour man lii. ñoom ñoo ma waroon njëkk a félicité ñoom waroon doon remercier ci initiative bu ma jël encouragé ma non dañ dañuy def brigade de recherche dañuy dañuy tabax te man def naa ni gendarmerie fii espace fi am bëri na trop trop xanaa man ba ma ñëwee ba commencé def fii loolu laa mënul comprendre fii kenn musu koo bëgg kenn musu koo gis tey jii lii su amoon ba nii la ko nit ñi ba ma ñëwee ba assainir ko ba defar ko ba mu baax lañuy soog a gis lii mais kenn mësu koo gis nan ma bàyyi ma liggéey parce que loolu moo ma tax a jóg loolu rek moo ma tax a jóg rek moo ma tax a jóg te lépp lu ma def dama ko teg si yoon su ma amoon autorisation du ma ñeme am sañ-sañu taxaw fii di def di tabax lu toll nii wax dëgg yàlla maa ngi interpellé nag ñëpp l'état du Sénégal parce que ñun ay citoyen la fi lañ dëkk si dëkk bi dañoo war a liggéey dañoo jàppale nit ñi ñu liggéey moo gën mais mënu gis nit kuy liggéey ngeen koy freiné pour pour affaire yoo xam ni man mënu ma ko expliquer nan ñu bàyyi ñu liggéey man daal loolu rek laa am lu may wax je suis prêt à travailler pour ma ville je m'investis pour ma ville man ma bàyyi ma liggéey et puis ñu dem ci kanam yeneen yeneen yeneen projets yu mel ni am yeneen genre projet si yeneen secteur mën a am nit ñi mën a am liggéey liggéey liggéey bi quoi Euh, je m'appelle Pape Boubougué, j'habite euh, Thiès, je suis un Thiessois euh, qui a beaucoup investi pour Thiès. Et là, je viens en place euh, un restaurant, un fast-food restaurant. J'ai les constructions depuis le 14 juin 2017, avec l'autorisation, bien sûr, non, bien que la terre, euh, le, le, foncier appartient à la gendarmerie, mais j'ai eu l'autorisation de la gendarmerie et de la mairie de la commune ouest de qui m'ont autorisé à exploiter cet espace. J'aimerais bien préciser que cet espace a été longuement ici et a été tout le temps un lieu de débauche, de déperdition, où les jeunes, les vieillards, tout, tout, tous les âges confondus, venaient là pour faire des pratiques euh, vraiment euh, pas très commodes. Quoi. Et là, c'est suite à cela que j'ai senti la nécessité de mettre en place quelque chose pour créer au moins une quinzaine d'emplois puisque je suis un Thiessois, mais j'ai pas assez de sous. J'ai fait un crédit au niveau de la banque pour mettre en place cette, cette structure qui n'a pas encore fonctionné, qui devrait ouvrir au plus tard le 31 de ce mois. Et là, c'est hier que le, commande, le colonel de la gendarmerie euh, que le colonel de la gendarmerie m'a alerté pour me donner une sommation d'arrêt immédiat des travaux et de démolition d'ici. Ce que je ne peux pas comprendre. Parce que là, moi, je suis un honnête citoyen. J'ai fait un crédit à la banque, j'ai investi des millions ici. Si vous voyez le site, vous-même, vous pouvez témoigner que c'est des millions qui ont été sur l'infrastructure, sur le matériel et tout. J'aimerais vraiment travailler, continuer à travailler et continuer ce projet qui est profitable pour moi et pour, et pour tout Thiès. Voilà. Alors, euh, vous aviez l'autorisation euh, au la gendarmerie Mais bien sûr, l'autorisation, elle est là. Ah l'autorisation, est là. c'est le maire. qui a donné un avis favorable. Qui a donné un avis favorable. Et le, leurs services techniques ont mené des enquêtes, des enquêtes sur le site. Ils ont rendu compte à leurs supérieurs, les informant que ce site est, est un lieu de déperdition, de vagabondage, de tout. Et même les agents de la, de, de, de, la gendarmerie, tout, tous les soirs, ils passaient faire des patrouilles ici et tout le temps, ils ne rentraient, pas, ils, ils rentraient jamais bredouilles. C'était un milieu vraiment de banditisme qui n'a jamais été exploité. Personne n'a jamais eu cette vision. Ça, je l'ai mûri pendant plus de 15 ans. Et au-delà de l'avis favorable de la commune de Thiès Et de la gendarmerie, et, euh, et, euh, et du colonel de la gendarmerie. De la gendarmerie de oui, j'ai tout ça ici. C'est hier que j'ai reçu la sommation. Ce que je ne peux pas comprendre. Et cette sommation, elle vient de la gendarmerie Elle vient de la... Euh, bon, c'est ou... la, la, gendarmerie, tout court. Je ne sais pas si c'est national ou, ou local, quoi. Mais ce que je veux préciser, moi je suis un honnête citoyen qui n'a pas volé, qui n'a pas vendu de drogue, qui a bénéficié d'un prêt bancaire pour mettre ça. Ça, c'est des millions. Il y a des Tiessois qui ont des milliards qui n'ont rien investi. Si on avait 20 Tiessois comme nous, franchement, là, on aurait une autre face de notre ville, quoi. Et là, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, quoi, franchement. Quel appel, quel appel vous, vous ce que L'appel que je lance, c'est qu'ils me laissent travailler, c'est mon ambition. C'est un projet que j'ai mûri pendant des années. Je l'ai étudié. Vous avez compris J'ai bien étudié ce projet. Et ce que je fais, je le fais pour ma ville. Je ne le fais pas pour moi. Je pouvais euh, voyager, aller ailleurs, investir autre part. Mais je crois à ma ville. J'ai trop donné à cette ville. Et voilà ce que notre ville me... Expliquez-nous concrètement ouais. le projet. Le, concr... le, le projet, concrètement, c'est aussi simple. j'ai vu que par rapport à la situation géographique, qu'il manquait des restos. Bon, là où on peut manger même un shawarma ou un sandwich, il faut quitter ici pour, pour, aller en ville, prendre un taxi, pour prendre un shawarma qui coûte 1000 francs et, et payer le taxi en aller-retour. Là, j'ai senti que c'est une nécessité. C'est même profitable pour la gendarmerie. Parce que leurs éléments, à leur retour, à leur retour euh, de patrouille ou de, de travail, ils ont des soucis pour manger un, un sandwich. Ils vont jusqu'en ville. les éléments de la gendarmerie ont bien accueilli ce projet. Mais je ne sais pas ce qui se passe en dessous de ça, franchement. C'est ça mon problème. Est-ce qu'on vous a motivé euh, Le papier que vous avez, est-ce qu'on a motivé la, les raisons Ou bien on vous a dit tout simplement les, les, Aucune raison, aucune raison n'a été, été, donnée à, à, à ce sujet. Ce qu'ils ont écrit, ils ont dit notification d'arrêt et de démolition des travaux sur un terrain de la gendarmerie. comme si je n'avais pas une autorisation de la gendarmerie. Et j'en bénéficie. Il n'y a, a, pas de raison pour nous dire que vous, vous décapissez parce qu'on doit mettre ça et ça et ça et ça. Et pour ça, il y a assez d'espace ici pour mettre tout, tout ce qu'ils vont, tout ce qu'ils ont envie de mettre, quoi, franchement. Il y a trop d'espace. L'espace là, c'était un jardin public. C'était un jardin public. Ça berce notre enfance. on connaît bien cet espace. Mais qui appartient à la à la gendarmerie aussi m'a autorisé. C'est important. Ce n'est pas une autorisation verbale, c'est une, une, autorisation écrite et signée. Ce Non, je saisis les autorités de laisser les gens qui ont des projets réaliser leurs projet Avec les maigres sous que nous avons, Nous voulons travailler pour notre ville. Nous avons trop donné à cette ville. Les gens me reconnaîtront. Nous, je, nous, moi et les autres. On a trop donné à cette ville. Mais pourquoi nous mettre les bâtons dans les roues au moment où un milieu qui n'a jamais été ciblé, un lieu de débauche, tout s'est passé ici. Les gens venaient ici pour fumer du chanvre aérien. Ils prenaient de, de On baisait les gens. il faut que je le dise. Mais c'est important, quoi. Je suis désolé et je m'excuse. On baise les gens sur les, sur, sur, les bancs. Vous pouvez témoigner que sur tous les bancs, on a, on a, on a les gendarmes ont versé du goudron pour que les gens ne se soient plus sur les bancs.